seen collaboration ak waa Daaray Kamil ci thème yi nga xam te ñu ngi ko koy yëkkati ngir ci màggal 2020 bi euh, ci les dimensions du màggal ñu war ci ànd ak sunu professeur malik Ndiaye nekk ni sama càmmoñ ak sunu euh, xarit di monsieur Alla Diagne man Mamadou Ndoye maay présentateur bi gannaaw loolu ñu ngi ñëw tey pour def rek benn campé benn débat mais développement bi dañ ko def si forme de séminaire mu gën a yaatu incha allahu rabbi donc ki ñu jëkk daral mooy professeur Mali Ndiaye euh, di sociologue nekk coordonnateur comité d'initiative des intellectuels du Sénégal nekk en même temps directeur du labo de prospective bu département de sociologie BSC université Cheikh Anta Diop de Dakar kon professeur bismillah mu tàmbali ci thème bi ñu ko dénk bismillah professeur <coughs> ah oui ah c'est euh, <coughs> mbokk yi xarit yi am di jàmm yi tey jii ànd ak sunu am di jàmm. Alla Dieng Alla Dieng nit ñi dañuy wax rek Alla Dieng yu naa ko yeesal déedéet. Alla Dieng weesu na yéen a ko yeesal dana ci ñëw ci boppam ñépp xam ne Alla daaray kaamil bii biñ koy defar jógagul Alla mi ngi woon ci daara des étudiants mourides waaye loolu dina ci indil boppam ñaareel ba ki ñu àndal mooy Mamadou Ndoye Mamadou Ndoye moom ak ñëpp ñi muy liggéeyal. ku mel ne ñoom Touré nee nañu di leen tax a jóg ñoom mooy Sénégal seen mouvement bi d'ailleurs <laughs> Sénégal notre priorité la tudd maanaam Sénégal moo leen tax a jóg man nag gars yi dañuy wax professeur waaye man taalibe li ma gëm Serigne Moustapha jatara ñëw naa fi ba tey di gëstu xam-xam mu di ma jàngal di ma won di ma wax attention sëriñ isaaxa kadalika sëriñ isaaxa mbàkke man bu ma xamee luy li may wax ñetti i maanaam islam iman exsan kooku sëriñ isaaxa moo ma ko leeral ba mu leer bu baax maanaam lislaam di julli rek doyul de déedéet doyul mukk foog nga koy jëfe léegi nag man lu tax ma ne professeur moom taalibe la dama bëgg affaire yi leer bi nga xamee ne lu mat fukki at ak juróom-benn ngi nii bind nañu ca université ba benn xalaat ci Masalikal Jinaan mais foofa ñu baree tuuti ñu dàq ñu université ñu ne ñu bon bu ngeen def fi lu tax parce que dañu ne leen Sénégal li ñuy jàngale faculté de droit ñu naan woy je suis professeur agrégé professeur profe agré li ñuy jàngale ca faculté yëpp dafa am lu ci dugg loolu lan la mooy jikko tubaab yi bon yi jikko tubaab yi bon ji mooy lan mooy dañoo jël li nga xam ne mooy jikko ñu sànni ko fële di jàpp rek loo xam ne moom la ñuy wax ay technique ay instruction waaw léegi nag loolu moo indi li ñuy wax séparation maanaam teqale instruction ak éducation réew boo ko bëggee defar na nga dem nga tàmbalee ci jikko jikko nag éducation dañ koy defar tubaab yi maanaam des quatre communes li ñu def mooy lan mooy dañoo jàpp jikko di ko yàq di ko saaga di ko sànni di ko sewal ba nga xam ne ñi am seen diplôme yi ñi ci ëpp duñu sax ay intellectuel ngeen baal ma de ay diplômé lañ diplômé mooy lan mooy ki nga xam dañ naan am na lijaase bi am na licence am na bac am na maîtrise am na agrégation loolu ay diplôme la de waaw xam-xam ak diplôme du benn léegi nag ki nga xam ne moom moo njëkk leeral ne tubaab bi yàq nañu jikko yi kan la kooku mooy ki nga xam ne moom moo bind masalikal jinaan waaye moo bind tamit xam naa àlla dina ci dellusi matlabul shifaay min kulli daa yaa man daf a kulli daay falaa tufaariq falaa tufaariq matlaba waa dum alay maanaam aywa bu ko bàyyi fil masaay maanaam ci suba gi wa sabaax maanaam ba ci ngoon soo ko defee nga dëgër ci wa axlis tanaal shifaay wa falaax maanaam danga bu soobee yàlla danga jot danga am li ngay wut te danga am tamit bu ci yàlla àndee sa coono dafay wàcc kon ki nga xam ne moom moo njëkk a gis ba bind ko li tubaab yi yàq ñu naan ay quatre communes ak ay indigènes ak def nit ñi ay baadoolo kooku la kooku mooy ki bind masalikal jinaan ji naan nag comme niñ ko waxee tey jii dañuy junj rek waaye dañ def séminaire fii ci daaray kaamil ñu invité ñuy war a invité ñëpp léegi boo gisee Masalikal Jinaan am solo c'est que Masalikal Jinaan dafa defaraat xam-xam yoo xam ne sénégalais na bàyyi du juum de du xam-xamu sénégalais rek de déedéet Masalikal Jinaan dafa defaraat xam-xam boo xam ne ci biir adduna bi yépp la lu mu tekki dafa tekki ne boo demee Arabie Saoudite laa wax de boo demee Amérique nga dem France wala nga dem Gabon wala Mayombe wala foo mënti dem am na fi xam-xam boo xam ne ki ko defar ki ko bind ki ko jëfe ki am jaar-jaar kooku mooy Cheikhul Khadim kon ñun bi ñu commencé dem ba gis ne mais gars yi dañuy naxe tubaab bi dañuy naxe ñu ne école bi dara baaxu ci dara baaxu ci li mu tekki waxuñu ne ki am diplôme amul diplôme waxuma loolu de waaye dama ne fañ ko jëmale mooy dañ ko bëgg mu wor li nga xam ne moom la fi maam yi bàyyi woon maanaam jub ngor rafet jikko jikko jëfe ak tamit moom la fi sallallahu alayhi wa sallam jàngale maanaam Seydina Muhammad kon ki nga xam ne dafa dem ba ne fu ne jàng na fa avant muy bind Masalikal Jinaan mais Sëriñ Tuubaa dafa jàng fu ne tugg na fa livre yu jógee Maroc yu jógee Égypte yu jógee Tunisie yu jógee Arabie Saoudite yëpp moom la Sëriñ Tuubaa jàng jàng jàng affaire u al Ghazali danañ ci dellu si séminaire bi jàng affaire u al sanusi al shadili al damani yépp la jël imam malik al tijani al jilani yépp livre yépp mais loolu naka la tudd mais loolu mooy thèse de doctorat d'état sëñ Touba dafa def thèse de doctorat d'état kon Masaalikal Jinaan bu kenn jàppee ni ay affaire ay mystique la maanaam loo xam ne ay dafay kii rek di déedéet Masaalikal Jinaan moom moo njëkk leeral te Masalikul Jinaan problème yi nga xam ne moom la tubaab yi amoon ku ko leeral Masalikul Jinaan moo ko leeral problème mu ñoom monsieur Voltaire Rousseau Montesquieu seen problème yëpp yëpp yëpp ñu doon wax ay ñoom Diderot danañ ci dellu séminaire bi ki nga xam ne moom moo jël li ci am solo maanaam. tasawuf ak fiq foog nga boole leen comme ni ngay boole zahir ak batin ki njëkk wax loolu bind ko al ilmu maanaam xam-xam innal ulamaa ci boroom xam-xam yi lum mu ci wax mais dafa leeral ne zahirin wa batinin sirran kutib kon loolu daf lu mu tekki lu mu tekki mooy xam-xam dëgg ci nit xam-xam dëgg ci biir société bi dafa am ñaar yoo xam ne moom la jàpp mooy li ci biir li ci biti séminaire bi danañ ci dellu si bu wóor incha allah danañ ci dellu si bu wóor kooku ba mu defee loolu ba wone sëñ Tuubaa moo njëkk a wone ne boo jàppee rek li ci biti maanaam li zaahir bi nga bàyyi li ci biir bootul da nga juum boo jàppee tamit li nga xam ne mooy li ci biir te toppatoo nit ñi toppatoo addina bi toppatoo nit ñi pour ñu génn ci seen li ñu sonn def nga erreur moo tax vers numéro 89 masalikal jinaan moo ne waman li zahirin koo xam ne danga jël zahir bi waa baatinin maanaam baatin bi ni ci biir nga boole ko wa man li zahirin wa batinin jama jama mooy nga boole leen huwa alladi xoq kooku baax na kooku dëgg kooku na ko topp mais loolu mooy révolution intellectuelle bi nga xam ne ñoom Voltaire ñoom Rousseau ñoom Karl ñoom ñëpp ci doowu tubaab yi loolu lañ doon jéem a wut nuñ koy régler ñu échec kon dafa leer léegi nag sëñ bi fu jaar <laughs> ah <laughs> loolu moom nañ bàyyi ba sëñ Muntaxa ñëw ak sëñ Isaaxa waaye man loolu mënu ma ko réglé waaye li ma mën a xam mooy li nga xam ne dañ koo bind mu nekk ci masalik la ñu bind ci masalik kooku lii nga xam ne moo indi tey ji guta ci àddina bi te bi Covid bi ñëwee boobu la loolu gën a feeñ ñépp naan lu ñu dal lii la lii la ne leen doucement ku jàng bu baax masaalik da nga xam ne nit ki ci boppam moom moo génn yoon bi ko biñ ko teg yoon bi ko boroomam won moom nit ki moo ko génn lu tax mais ndaxte bu fekkee ne xaalis moo la tax a jóg nga bàyyi nit ñi ñi ñuy wax retraité yi ñi ñuy wax euh, néew ji doole yi nga bàyyi leen toppatoo leen li may wax nii France laay wax de muy monsieur Macron Amérique laay wax de muy monsieur Trump ak ñeneen ak ñeneen ñooñu toppatoo wuñ ni xaalis lañ doon toppatoo bi feebar bi ñëwee nag ñu naan léegi dañuy ut ay lii ay la déedéet li nga xam ne moom la ñu sëñ jàngal ci Masaalikal Jinaan mu génn bu baax ci matlabu shifaay min kulli daa lan la mooy nit ki bala ngay mën a dangay da nite kon nite ak nit du benn nit kese yàgg bàyyi ma yéen a yam waaye bu fekkee ne dem nga ba am xel ba am xalaat ba am looy jomb looy bañ aha yaa ngi ci yoon bi kon nanu jàpp ne masalikal jinaan du affaire euh, li ñuy wax mystique kon am na ñoo xam ne xaw ma nu ñu leen di wooyee man du ma leen tudd arabe yi ñoo leen formé ñu ñëw dugg ci dëkk bi di jaxase ñenn ñi man seen tur yooyu du ma ci dugg ñooñu ñun danañ leen jàngal Masaalikal naan li nga xam ne defar na ko te arab yi gisuñu ko tubaab yi gisuñu ko kon léegi sëriñ bi jaar-jaar bi dafa doy waar loolu moo tax tey jii comme ni ma ko waxe ñun dañuy ñëw rek wax mbokk yi ni leen addina bi yépp laa wax muy Amérique muy Chine muy France muy Afrique jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko tey jii billahi mën nañ koo régler waaye bala nga koy mën a régler nga dem nga seet ki nga xam ne xam-xamam moom moo mën a delloowaat nit ci yoon bi kooku nag livre boobu benn la am dans le monde amul ñaar amul ñett kon comme ni mu ko doon waxee ba gars yi rek kon monsieur Macron ak monsieur Trump il faut ñu jëli leen indi leen Touba ñu formé waat leen ñu jàngal leen li leen manqué ñoom tubaab bi ak euh, ñi mel ne ñoom ak ñi jël seen jikko lan la mooy dañoo fàtte ne nit ki dafa am tey am ëllëg am fii ak fële am tey ak suba ki nga xam ne dafa fàtte tey ak suba lu mu def mais loolu moom mooy ñaari ràkk yi ñun dem nañ ndar ñaari ràkk yi la lu mu demee mais dañu ne sëriñ bi na signé loolu sëñ Mountakha xam ne ko parce que moom moo ko jàngal ku tudd Fahmi ba mu bind ko ci livre bi livre Fahmi bi loolu feeñ na ci bu baax te sëriñ Mountakha moom moo ko leeral waaye sëriñ Basiru ci minan al baqil qadim leeraloon na loolu sëriñ Amadou Lamine Diop Dagana tamit Iwa al Nadim leeral na loolu li ñu bëggoon sëñ Touba signé ko mu ne leen ñett du fi am tey du fi am ëllëg ñu wër foofu yëpp dem jeewal dem Mbakk Kajoor fi ñu dugg fa ni ko signé comme ça du ñu la yóbbu mais bi ñu demee Ndar def fa conférence wax nañ ko ak waa Rawdu Rayaahin monsieur Mor Faye professeur bi may dégg Serigne Moustapha muy président commission culturelle bu euh, euh, ñaari rakk yi ndar waxtaan nañ ci kon dafay leer de Sëriñ Tuubaa li ñu ko bëgg a signé woon demee ba xam ba xam ba xam daf ne leen abaleen bu bees ñu jox ko rek lu mu ci bind loolu laa bëgg xale yi bañ ko fàtte mag ñi tamit bàyyi si xel lam ci bind mooy qul huwa allahu ahadun allahu samadu lam yalid wa yulad waaye loolu lu ko indi loolu moo indi yoonu géej gi léegi lu ñu ko bëggoon signaloo mooy lan mooy yàlla amul kon laïcité li ñuy wax laïcité li ñuy wax laïcité foofa la sëriñ bi bañ li ñuy wax loi républicaine moo ne lépp loo xam ne diine la dañ ko jël sànni ko fële dañuy def ba nga xam ne diine ku nekk sa bopp rek la mais loolu sëriñ bi moom dafa dafa nand avant muy ñëw ndar parce que mbiru jeewal bi ma fàttali leen ko de man sëñ Muntaxa laa dégg mu leeral ko bu baax jeewal foofa la iblis maanaam lépp lu bon mu xam ne dafa bëgg a yàq Sénégal yàq àddina bi ak tubaab yi ñëw ne dañ ko jël si mais foofa la leen daaneele victoire bi ci tubaab yi ah kon de borom xam-xam yi nañ ci jóg de du ci biir bato bi de déedéet jaaraan la bañ ko ne nag léegi sëñ bi dangay dem mu ne il faut mu dem ndaxte li ma sama borom sant li ma sama jikko nangul il faut ma wan leen ko kon man dama bëgg rek mu xam ne sëñ Tuuba euh, wax amul moroom rek <laughs> doyul déedéet sëñ Tuubaa dafa loo xam ne surat al-Baqara daf ko leeral bu baax mooy vers 177 bi vers 177 lu mu wax laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal-maghribi maanaam gëm du foor du rek nekk fi di julli di de déedéet du loolu ne Euh, du loolu rek bu dee julli la rek ak di woy ak di sikar du sotti wal mu fuuna ñi nga xam ne engagement buñ jël bi ahdihim ida ahadi wa saabirina fil baxsaay maanaam ñi nga xam ne dañu dëgër am engagement lu ñu wax dañ koy def nee na ñooñu ñooñu ñi nga xam ne moom la ñuy wut kon nanu def góorgóorlu ñu xam ne sëñ Tuubaa bi la mu liggéey ba dem ba dépassé xutb yi amoon temps respecté na leen nag respecté na ñëpp sans problème moom sëñ Tuubaa amul benn problème ak xutb déedéet ñëpp la respecté waaye daf ne ñëpp yoon bi ñu jëm baax na ah waaye nag moom xaadimu rasul mais xaadimu rasul dafa am lu mu tekki de mooy yoon bi dafa amoon ay tabax yu bari ay kàmb yu bari ay yu bare yu ñu tabaxoon nga xam ne ba bëggee ñëw ci yoon bi rek mu mbëkk la kon yoon bi nga xam ne xaadim moo ko dindi balee ko setal ko setal ko setal ko setal ko yoon boobu du jullit yi rek de attention de na leer de c'est-à-dire du musulman yi la rek waaw ñun suñu musulman yi nanu xam ne Sëriñ Touba ak Seydina Mohamed ñoom dañoo gëm bu baax a baax a baax a baax ne waaw Jésus li tubaab bi di wax Jésus maanaam Insa mais Insa ak Sëriñ Touba benn la Sëriñ Touba ni muy nangoo Mohamed sallallahu alayhi wa noonu la bëggee Isa ibnu Mariam kon ba woy ko te xam naa ne loolu àlla dina ci jëli si kon catholique ku ne si bopp catholique xamal ne Serigne Touba benn problème ak catholique déedéet ñi ko doon jéem sànq du ay catholique de Serigne Touba amul benn problème ak keneen koo xam ne danga nga ànd ak da nga ci Ibrahima nga bokk wala ci Moussa déedéet. kon sëriñ Touba ci Masaalikal Jinaan ak ci Matlabul Chifaay bi jikko yu baax yëpp Pape Modou Ndiaye d'ailleurs sunu benn camarade boo xam ne dañuy liggéey nee na laa nu farriqu bayna ahadin min rasuli principe boobu c'est un des grands principes de l'islam maanaam tous les prophètes tous les messagers sont acceptés de la même façon ça veut dire que Serigne Touba représente Ibrahim Serigne Touba représente Moïse Moussa Serigne Touba représente Insa kon bu ñu fi kenn indil ay problème wu ay catholique ak murid murid bi yoon la kon moo résumé foofu rek ne ñun Masalikal Jinaan bi nga xam ne moom moo ne am na ba signé ñu ne ko boo signé ñu delloo la sa kër mu ne man yéen foog ngeen ne da ngeen may gaañ waaye man gaañu leen ma sama boroom moo moo dugal ci yoon bi damay continuer dem ci yoon bi kon li ko yóbbu Gabon yëpp xam nañ ko léegi kon nag Sénégal na xam boppam na xam yoonu géej gi lan la yoonu géej gi bañ kuy wedd yàlla bañ ku weddi yonent bi bañ ku weddi religion yépp muy Moïse muy Ibrahim mais loolu ñan la kooku danañ ci dellu ci ci séminaire bi parce que xam nañ ñan la léegi ñi nga xam ne nag ay ay arab ñoo leen formé ñu ñëw fii di jéem a jaxase duñ leen tudd waaye ci séminaire bi dañ ci dellu si bu baax kon ñuy tubaab yi formé yàq seen jikko ak ñi nga xam ne ay arab ñoo leen formé bëgg ñu ñëw fii di jaxase dëkk bi ñaari group yooyu yëpp xam nañ leen bu baax waaye nañu def ndànk ñu dem jëli li nga xam ne noo ko moom maanaam masalik masalik moom boo ko jëlee rek danga xam ne masalik addina bi yëpp li ko ja li ci jafe masalik moom moo trouvé solution bi kon masalik <laughs> sénégalais yi moomu leen ko de léegi nag fi may terminer rek mooy nit ñaa ngi wax toujours affaire u Mali mais du Mali rek Mali Guinée Côte d'Ivoire Gabon dëkk yooyu yëpp li nga xam ne moom la sëriñ bi doon bañ ñu def ko Sénégal mais dëkk yooyu yëpp lool loolu lañ fa def li sëriñ bi doon bañ ba signé ne yàlla am na xulub wala loolu la tubaab bi appliqué Sénégal appliquer ko ci Afrique de l'Ouest yëpp appliqué ko tamit moyen Congo ngi chari mooy fañ ko yóbbu woon kon nanu xam ne bu ñu paree liggéey bi ba def séminaire bi fii te ñépp ñu ci war a ñëw danañ ci ñëw danañu xam ne addina bi ak Afrique li ñuy daw li ñuy ragal am na koo xam ne moom daf cee xalaat bind ci am ci jaar-jaar am ci jaar-jaar kooku nag euh, Ahmad Bamba dañ koy tuddee muy xaadimu sol kon man damay tënk foofu rek te xam ne góor góorgóorlu Sénégal jikko yi doy na nan ko defaraat Sénégal wax ji bare na trop ñaaw tey fii te xam ngeen ne euh, wahab lana makaarimal axlaax n'est-ce pas kon ñu ngi ñaan makaarimal axlaax loolu ci matlabul shifaay la bokk mooy vers quatorze bi waaw yemul foofu de daf ne maa tahaabu maanaam ñu boole ci jikko yu baax te rafet shiqaaq yi maanaam ca ñu bañ ci boole wor ak di yàq ak loolu kon comme ni niñ ko waxee ñun rek góor góorgóorlu na xam ne liy metti ci àddina bi liy metti ci Sénégal solution bi Ahmad Bamba bàyyee nañu ko kon nañ ko jëmmal buñ ko jëmmalee rek incha allah eh, ñëpp nañu mën a am seen jàmm te bu boobaa ëllëg li nga xam ne képp ku jullit képp ku gëm yàlla da ko layoo fii nga koy commencé kon nag ñun ñu ngi xaar rek ba séminaire bi ñëw ñu toog fi yëpp ñëpp ñu dugg ci biir atelier yi ñu développé kon nag Alla Dieng bi nga xam ne moom membre fondateur la balaa daaray kaamil bi di am mi foon ak woon ak euh, Mamadou Ndoye Sénégal notre priorité jërëjëf waaye jërëjëf tamit sama professeur yi man taalibe la waaye sama professeur yi Moustapha Diattara mënuma koo bañ a euh, metti euh, remercier mënuma bañ a tamit sëñ Isaaxa bi ma jàngal <laughs> iman islam ihsan jërëjëf waaw kay jërëjëf euh, professeur Malick thème bi am na solo moo fàttali ka rek Masalikal Jinaan ou la pédagogie du xidma et la didactique du chifa min kulida Euh, yaatu na lool xam naa seminaire bi rek moo mën a tax lépp génn waaw ngi ñu jox euh, suñu mbokk di euh, monsieur Alla Dieng moom nag ancien secrétaire général fédération national des des élèves murid du Sénégal la woon. waxaat ko loolu yàgg na xam naa dina si ñëwaat bu baax. Mhm. ancien secrétaire général de la fédération nationale des élèves murid des élèves et étudiants murid du Sénégal fi ñu toll nii nag ndombal tànk bi mu yor wàllu àddina directeur exécutif bu UNACOIS Yeesal waaw incha allah mu ñëw yaatal tuuti si wàllu économie bu baax. moom dafa dafa am bac euh, algérien dafa am bac ñu ni ko demal université rek mu ne ruux rek daal di dem Gambie def yi Modou Modou loolu loolu jafe na. jërëjëf prof. aouzu billahi mina shaytaan wa salaatu wa salaam wa Mawlana wa ala wa sahbihi ñi nga xam ne ñoo jëkk a wax ne Serigne Ndoye ak professeur Malick taalibe di sant aussi ñi ñu organiser rencontre barab bi ñu toog nag mooy ci tey tàmbalee wax damay rendre hommage ci fi nekk di Cheikh Abdoulaye Mbacké ndax dafa bokk ci ñu nu uufoon bi ñu nekkee jàng daara nasaraan waaye dafa bokkoon ci ñu nu uufoon bi may bi ñu nekk daara nasaraan di muy daari de sit ñaa waaye balaa boobu lycée yu bëri lycée Blaise Diagne lycée Vanvo Lamine Gueye lycée de la Fosse falaa nekkoon waaye ba lycée Kennedy sax fu ci nekk def nañ fa cellule daayira des élèves murid mhm. boobu daayira des étudiants murid existé na ñoom ñu ni formé ngir ñu remplacer leen ëllëg sëriñ Abdou Lahad nekk suñu wayjur di suñ kilifa soxna Assu Mbàkke bu sëriñ Baara nekk suñu yaay suñu wayjuru jigéen loolu lu mu tekki mooy bi ñu nekkee nasaraan di jàng di wut baccalauréat ñu ngi ko boole di jàng téere sëriñ Touba yi ci daara bi ñuy wax Sicabridis en face CS Ousmane Goundiam lañ fa daan jàng kun man mhm. te zawda sixaar jaw haru nahju hada amaaj mu layin sudur mu nawir sudur xal bu kaaw masalikul jinaan mooy bul xuddus ba ci fathul manaan fi jawaabi abdurahman fathul manaan fi jawaabi abdurahman ku jàng tasawfu wala nga jàng téere boobu dana xam loo xam ci tasawuf ma du ma ñëw ci masalik di ci yàgg sax waaye ci mooy bul xuddus laay dem gis ngeen mooy bul xuddus bari na ay conference yi ngeen dégg ñuy wax ci lislaam rarement ñu cité Maoul Khoudous c'est rare dama naan bu weesoo sëñ mbay kenn lay dégg mu koy cité léeg-léeg muy Serigne Cheikh Awa Balla Guèye su ko weesoo de bëriwul conférencier buy cité Maoul Khoudous ndax diis loolu ndax Maoul Khoudous mooy carte d'identité yàlla léegi ma ñëw nag ci màggal gi ak itam barab bi ndax bibliothèque maktaba Cheikhul Khadim liggéeyu Serigne Abdoul Ahad te mën na maa wax sax ne développement wu Touba développement fulgurant bu Touba c'est entre 1970 ba 1989 magistère u Sëñ Abdou Lahad ci la Touba développé bu jéggi dayoo daaray kaamil nag moo njëkk ci infrastructure yi muy liggéey te liggéey bu mu daan liggéey danaan soxla naa nangam teg naa nangam ci taabal ji lu waaye am na indi waaye daaray kaamil moom bi mu egsee 228 millions la laaj da ko génne teg ko ci taabal ji mm-hmm. liggéey bi commencé 1974 ba def deux ans et demi trois ñu doog ko inauguré kon damay rendre hommage Cheikh Abdou bi nekk fii nga xam ni ñetteelu xalifa Serigne tubaa waaye liggéey ci Touba liggéey bu rëy ndax ñaari mag yi ko magam yi ko jiitu ku ci nekk amoon nga mission moom bi mu ñëwee beneen mission la am sëñ Modou Moussa ñaari mission la amoon mooy jëlee sëñ Touba njaarim indi ko Touba beneen mission mooy tabax jumaa ji sëñ Fallou lan moo doon mission mooy jumaa ji mu fekk magam ji sëñ Modou Moussa liggéey ko ba palanteer romb moom dana ko inauguré moo ko eggalee inauguré doog alors mais màggal lañ daje lan mooy sens su màggal parce que professeur li wax am na solo mais moom laay conclure damay ñëw tuuti ci genèse histoire sëñ Touba jëruñu ci yàgg ndax ñëpp xam nañ ko waaye histoire Touba moo am importance jamono jii ak lu waral màggal gi Touba 1886 la ko sëñ bi fonde maanaam da ko doon sëñ bi da ko doon wër di ko wër di ko wër ba gis barab bi ndeke mi ngi doon ñaan boromam barab boo xam ne nii dana nekk misaalu àjjana ci kaw suuf ndax tur wi mi ngi jógee ci biir àjjana garab gu fa nekk la mm-hmm. waaye bi mu ñëwee ba wër barab bi ba gis ko te barab bi nekkoon loo xam dañ koy jaay ci saayir ak baatin sëñ bi jënd ko ci saayir ak baatin saayir sa mooy titre foncier waaye baatin ba muy liggéey bi mu liggéey géej mm-hmm. bi fi ñëwee toog nag kon ku ñëpp net fàttali ko nañ sëñ Abdou bi mu nettalee nii bi sëñ Touba nekkee dugg duggul euh, liiti kaaf ci sañ sëñ Mbàkke mën ji mu defaraat foofa jàkka jooju moo ko fondé waaye Daaru Xuddoos la woon waaye ba mu fa nekkee litikaaf fa la ko yonent bi feeñu kenn du mën a nettaliwaat loolu ndax dafa gudd waaye loolu ma war a dem géej gi ndax dafa ne yonent bi yonent bi dafa ne wax ma li nga bëgg tey ma defal la ko mu ne ko man de leen rek laa bëgg mooy leen rek laa bëgg mooy bokk ci gaa yu baax yi ànd ak yow yonent bi ne ko loolu raaf na loolu faat na ndax doo wax leneen loo bëgg ma defal la ko tey yonent bi nag sëñ Tuubaa ne ko loo ma defal de sa yéene rafet na waaye man li laa bëgg li ma bëgg mooy bokk ci gaa yu baax yi ànd ak yow hmm. yonent bi ne ko bokk ci ñii dañoo tuur deret ci lislaam te tuur deret ci lislaam amatul léegi amul benn xutba samaan bu amul benn xutba samaan bu am maa xam xutba samaan te sa ñeen fukki at matul yow sa ñeen fukki at manqué na ñetti bëgg naa la ko taxañal tey nga nekk xutba samaan mm-hmm. sëñ ko loolu de baax na lool waaye man li ma bëgg leen rek la mooy bokk ci sa gaa yu baax yi yonent bi ne nag kon waajal nga génn dëkk bi parce que mission nga nar a di jëm natt bu metti 288 nattu ñaar téeméeri juróom-ñett ak juróom-ñett dañ tegu sa kaw natt bu nag mën naa faat wàlliyu te duma ma la jàppale buy bëgg ñëw daal dinaa la yëgal ne la mi ngi bëgg a ñëw waaye boobu balaa cee pare hmm. sëñ Tuubaa tontu ko ne ko sama ruugi bindu mu ko de waaye lu ruugi attan sama jom attan na ko foofa nag la natti mëntul ñàkk nag mu daal di fa jóge yont bi nag kon waajal génn dëkk bi ndax dëkk bi moom kenn la fekk di la di la fi génne kenn la fekk di la teg coono ndax yaa wax ne wajal ariman ariman amina wa kun bi izzi kafilan damina kon waajal nga génn fekk loolu koor la woon mu woor ba wari diggi tabaski mu daal di tamxarit safar ñëw mu daal di génn dem dem Mbàkke Bari fa la jógee dem ci géej gi donc loolu mooy sensu màggal gi léegi nag Touba Touba am na ñaari particularité lu amul fenn ci àdduna bi benn Touba le Sénégal a été mais Touba n'a jamais été colonisé Touba benn buur musu ko yilif Touba nekk na centre boo xam ne nii fa la Jolof daje Njàmbur Bawol Waalo Siin Saalum bokkul ci fenn te bokk na ci fépp ndax bu bokkoon fenn rek benn buur dana ko moom waaye bokk na ci fépp ndax ñoom ñi dañ fi daje loolu mooy particularité Touba moo tax dañu naan le Sénégal a été colonisé sauf Touba Touba n'a jamais été colonisé. Ah et enfin Touba c'est la seule ville au monde qui n'a pas de bidonville loolu mooy lan Touba mooy dëkk bu am ci àdduna bi moom képp côté di cundum boo xam ne nii amul bidonville mooy bidonville mooy dëkk bu am doole am ay taax yu rafet. waaye ca mujj ga boo demee fekk fa ñu néew doole ñu torox ñuy feebar ñuy wéradi loolu amul boo demee ca frontière Touba da nga fa fekk kër gu rafet goo xam moo gën a rafet kër gu sës ci wetu jumaa ji loolu Touba rek moo ko am ci àdduna bi na ngeen gëstu mhm. particularité léegi nag ñu ñëw ci pandémie bi te ci laay duggee ñëw ci Matlabul Chifa ndax professeur am lu mu ci junj temps bi duñ ko may waaye séminaire dina ko leer ëllëg mais pandémie bi moom safar gi ñu nekk xam leen ne mooy saafara covid fii moom Sénégal xaw ma ne beneen dëkk mais fii moom mat la matlabu shifa min kulli daa moo fi saafara Covid. et enfin nag ñu dugg ci wàllu économie le culte du travail dans l'islam mais dans le mouridisme sëñ Touba dafa élevé niveau liggéey waxuma la naan dafa bokk ci diine waaye mooy xaaju diine parce que boo liggéeyul doo mën a faj sa soxla soo mënut a faj sa soxla doo mën a am indépendance soo mënut a am indépendance doo mën a jaamu yàlla. dèjà dañ laa digal nga liggéey ba am sax di ci mën a génn asaka dimbali ñu néew doole kon liggéey obligation la Sëñ Tuubaa dafa élever liggéey niveau bu kawe boo xam ne nii ki ko sem ñaar nit ñaari jëmm ñoo symboliser liggéey ci biir biir yoonu mu murit mooy maam Cheikh Rahma Fall ak Cheikh Anta Gawane Serigne Cheikh ñoom ñoo xamoon sens du travail la mystique du travail ñoom ñoo ko xamoon te dañ daan liggéey bu pare paree ba eggal soxlawuñ ci dara. te loolu mooy dëppal gi sëñ Mourtala daan ñaan suñ borom naan ko may ma àdduna ci sama loxo waaye génn ko sama xol ñoom lu ñu ma saan liggéey alal ñoom ñaan ñëpp ku ci nekk milliardaire nga woon waaye loo liggéey ñëw jox sëñ Touba ne ko loo ma dugalu du ko def loolu jafe na donc le sens du travail et ma def dig def digression wala sax jubal daal dugg ci économie sañ na maa wax ci économie nag ci Sénégal man mhm. sañ na maa wax ci économie ci Sénégal ndax bërki démb jàkkaaroon naa président de la wax économie informelle ci Sénégal économie informelle c'est qui économie informelle c'est quoi mais c'est les mourides. depuis Maam Cheikh Anta depuis le les les les trois pluies des douze les trois trois mois de pluie de l'année de douze mois su trois mois de pluie mosaan jeex la lendemain bañ jaay seen gerte sëñ bi daf leen na woo ku ci jàng yëkkati toogal fi jàng waaye ku ci liggéey yëkkati dama réewu taax ne la boo demee réewu taax bul réy réylu loo gis ñu sànni ko for ko denc ko xam ne am na koy wër. loolu fa la fa la fa la gis butéel bu ñu sànni nga jël ko teg di xaar luy pàkku làmbaay lan mooy origine pàkku làmbaay da jëm ci genn kër ñu def poubelle ba sànni fa ay butéel butéel yooyu boo ko jël raxas ko léegi am na ko xam ne mi ngi wër butéel ngir ngir jënd ko fukki dërëm ñaar fukki dërëm téeméer dërëm nga def ci saafara mais loolu métier la y a pas de sot métier y a des sots ou bien ceux qui sont pas sots mais y a pas de sot métier te loolu nag dafa barkeel parce que ndigalu Sëñ Tuubaa da ci ànd ñi yàlla may tey alal ñu nekk ay industriel wala ñuy dund wala ñu weesu woon ñu ci bëri jaar nañ ci li ñu wax économie informelle mooy kaay mu kaayaatu jël benn layu def ca soccu def ca petit cola def ca guro ca tàngal min di wër di jaay sax ci ñi ko daan def avant indépendance tubaab bi dañu jël seen lay yi tuur ko yóbbu leen tëj leen ñu fanaan fa benn fan ñaari fan bu ñu xëyee ci suba ñu lebiwaat xaalis tàmbaliwaat nekk milliardaire wala seen doom ñoo nekk milliardaire mooy économie informelle te loolu mooy économie ndax économie informelle mooy jur économie industrielle et que Touba le sens du travail des différents xalif de sëñ Touba de sëñ Modou Moussa ba tey ji sëñ Mountakha lu tax bu laajee lu mu laaj lu mu laaj mu jot ci moom mooy tàmbali waaye balaa ngoon lu mu laaj mu jot ci lu tabax jumaa ji lan moo tabax daaree kaamil ji lan moo yokkaat soror yi lan moo def extension jumaa ji lu tabax Masaalikul Jinaan lan moo tabax lan moo tabax euh, euh, njaareem ci ndi ndigalu sëñ Tuubaa jaar ci loxo yi sëñi sàjjenn ñaq rek te bu ñu nee ñaq nag waxuñu sénégalais yi nekk fii di murid di liggéey waaye émigré ñu nekk bitim réew li ñuy apporté ci réew mi kenn xam na nu toll li ñuy liggéey di ko yóbbante seen njaboot ak seen sëriñ fii kenn xam na toll loolu ci barke bu sëñ Tuubaa def ci ñoom la te lay te sëñ Tuubaa sëñ Cheikh Mbacke tàmbali ci moom sëñ Modou bu sëñ ak sëñ Mbacke soxna ak sëriñ Mourtada ñoom ñooy les principaux ambassadeurs du mouridisme fu ne yóbbu nañ fa l'islam ci àdduna bi jaarale ko ci ndigalu sëriñ Touba loolu nag liggéey booba dafa ànd ak loolu dafa ànd ak jaamu yàlla ak liggéey loolu nag moo defar yoon mu murid tey ba tey amul leen lu ñu soxla mu jafe leen et enfin professeur ñu ne ko sànq yaa yaa malikal mulki yaa man jàll an xawadin hmm. irham jami alwara yaa haadiyan radaha waa waraa waraa mooy lan foofu de waxul mumininu waxul naasu sax waraa la wax xam nga bu dee muminin mooy ñu jëm bu dee muslim mooy mooy julli ñi jullit yi bu nee waraa sax ñu ne nit ñi la bu nee naasu yi nit ñi la waaye bu nee waraa mbindeef la mbindaa fon yi sëñ Tuubaa yërmaandeem egg na ci suñ borom ne ko yow yërëmal ñi nga bind xam nga yërëmul waxul yërëmul taalibe waxul yërëmul jullit yi waxul way gëm yi waxul waxul mbindeef waxul doomu aadama yi li nga bind xobi garab yi ci lañ bokk jëni ci biir géej ci lañ bokk te loolu mooy wane ne discours am dafa romb sax diine discours am dafa egg foo xam ne nii képp koo xam ne am nga foi rawatina religion des le quatre religions révélées ku am foi rek même ba ci animistes yi sax seen sikka mooy liñ ñu gëmul yàlla gëmul yant bi waaye foi boobu ñu gëm suñ borom ma leen ci fay lu tax sëñ Tuubaa woy na Marie Sëriñ Tuubaa woy na Isa fosti bi zarfil hasanat sayyidatan lil muhsinat Sëriñ Tuubaa jàkkaarloog Mariama ne ko la sainte vierge allahu akbar la sainte allahu akbar ton fils ne sera jamais humilié ton fils ne sera jamais humilié ku muy waxal foofu Isa ndax am naa ndigal eggal wala ma bàyyi nodd gi kon ci gàttal ma tëj di wax lu tax lu xew nit ñëpp daw tubaa wut si ndimbal syndicaliste sax Malick professeur syndicaliste la bu ñu masaan jaaxle Touba la ñuy wut si patronat bu ñu masaan jaaxle Touba la ñuy si président la bu ñu masaan jaaxle Touba la ñuy loolu ku ko def et enfin balay yàgg danañ toog ak sëñ taxa am lu ñu waxtaan ak moom ndax réew mi ni muy doxee ak ci wàllu discours nit yi àdduna yi sax sëñ Ablaat dafa mas a wax ne foo demee ci mbooloo ne salaamaaleykum ñëpp nga déglu mursal nga ca ñoom. foo nekk ci mbooloo ne salaamaaleykum ñëpp ne teg la déglu mursal nga ci ñoom yàllantee na nga xam ko ba leen di wax lu leen jariñ àddina ak àllaaxira soo ko deful da nga ko lay ëllëg te li ëpp ci suñ nit ñi ci jamono jii duñu wax mu ko ba tudd yomal xiyaam duñ tat wax mu ko ba tudd àllaaxira ce qui li ñu def jënd nañ ci yàlla loolu nag buñ ci saxee ñu ngi dimbali Macron ñu ngi dimbali euh, Ronald Reagan ñi ngi dimbali. Trump ñu ngi dimbali ñi nga xam ne foog nañ ne àdduna rek moo am waaye àdduna moo am àllaaxira wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. merci jërëjëf jërëjëf sëñ Alla xanaa ñu jox professeur mu conclure euh, wax dernier moom rek pour euh, ba séminaire bi incha allah. Euh, déet yow waxal ma dégg yow mi yaa war a wax nag. maanaam ah, waaw bisimilah man de <laughs> mën nañu waaw. waaw kon nag waxtaan bi am na solo parce que li fi professeur génne. ci ni mu ko tàmmi di waxee deq yi li mu jiwoon am na luñ ci for lu lu am solo ci wàllu bu ñu tàmbalee si ñaari ràkk ya nga xamante ni am dina am ca ndar ak le décret di 16 juin 1895 kooku professeur am na lu ñu ci jàngal lu am solo euh, ñu ñëpp ñu ngi nuy junj pour ñu dem xoolaat ko bu ko defee mu jur ay njariñ ci réew mi. Euh, màggal gi tamit euh, professeur am na lu mu ci yaatalal lu am solo moom it euh, rawatina lii di Masaalikal naan nga xamante ni moo doon thème central bi ak wàllu xidma ndax sëñ Tuubaa moom lépp lépp lépp rek xidma xidma dafa am solo ci ci ci yoon bi donc thème bi nga xamante ne moo di Masaalikal Jinaan ou la pédagogie du xidma yaatu na lool ñu war dem tem si wàllu chifaay jàngat ci lu la bu chifaay ak rawatina mbas mi xew ci réew mi. chifa euh, moom euh, ñëw na pour saafara lépp waaw chifaun min kulli dayin comme ni ñu koy waxee gannaaw loolu euh, suñu xarit suñu mag suñu professeur aussi moom it àlla di suñu sëriñ yaatal na lool ci wàllu économie nga xamante ne domaine la boo xamante ne daf ko mhm. ndar kepp lool waaw économie informelle am na lu ñu si jàngal lu bari bari na ñu naan Touba mooy capital économie informelle waaw te ku ni informel wax économie industriel euh, ci informel lañ tàmbale jëm ci kaw waaw loolu ay tam la yu yaatuwoon lool euh, ñuy gërëm it di sant waa Touba Vision yi nga xamante ne ñu ngi ànd en collaboration ak waa Daaray Kaamil di gërëm sëñ Moustapha Diatara moom mi nga xamante ni mi ngi am confiance bu yaatu ci ñun di yaatal xam-xam bi di yaatal njàngaleem ak mbindum sëñ tubaa ba taalib yëpp mën si jot di gërëm di sant bu baax wax rek incha allah joxe rendez-vous ba séminaire bi incha allah. waaw voilà asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. léegi pour dëggal encore li nga xam ne Alla wax na ko parce que Alla moom mooy secrétaire exécutif <laughs> bu UNACOIS mais man dama bëgg a leeral ne bi muy UNACOIS mais amul woon jàppoo wala yeesal UNACOIS kese. moom mii moo nekkoon secrétaire général UNACOIS kese alors temps boobu man àlla fan laa ko xamee mais man dama doon def étude ci moodu moodu yi kon séminaire bi bu ñëwee mais danañ gën a leeral ne Sénégal mais développement <laughs> fu mu jaar mais développement ci ñi ñuy wax moodu moodu yi la jaar léegi boo jëlee Touba ca kanam danañ ci dellu séminaire bi boo jëlee ni ñu defaree Masalikal Jinaan ku ko defar boo jëlee dix-neuf cent vingt-neuf ni ñu defaree chemin de fer bi kooku bu leen ko fàtte vingt-neuf ba ñuy defar chemin de fer bi xaalis kan moo ci dugg kon développement réew mi <laughs> xaarul kenn de kon nan bàyyi rek bu séminaire bi ñëw waaye man daal maa ngi gën di gërëm sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa moom sëriñ Muntaxa mooy sunu xalif mais sëñ Muntaxa mooy sunu xalif mais sëñ Muntaxa c'est un des plus grands intellectuels moom la la xam de intellectuel waxuma diplômé de parce que diplômé ak intellectuel du benn kon bis bu ñu ñëwee ci séminaire bi danañu xool bu baax ne Sénégal dara manqué wu fi waaye addina bi tamit na bàyyi tiit ndaxte masaalikal jinaan buñ ko yóbbee ñu dugal ko ci université yi ba pare jàngal nit ñi ni ñuy defaree jikko maanaam matlabul shifaay matlabul shifaay du loo xam ne da ngay nekk tali rek déedéet du loolu de jikko dañ koy jëfee moom la ñuy wax xitma kon nan bàyyi rek ba tànk bi ñëw ñu dellusi ci séminaire bi tey dañu ne dañuy ñëw rek junj ko kon nag Ousseynou Diatara merci merci